bismillah jàngoroy coronavirus gi day ah Sénégal fawul de déedéet ubbil tribune yéene kaay nañu waxuma la dogal yi nga xam ne kon président Macky Sall kon daal dina ko jël ci biir réew mi de ah waaye daal dina de teg na jaww ja dama ne la avion de dootul dem dootul dikk de ngir xeex ak jàngoroy chinois ja yéene gi ne dama ne la Sénégal kay ah roppalaanam yi nga xam ne kon maanaam ñoo doon jóge ci doon ak France ak Italie Espagne ak Belgique ak Algérie Tunisie waaw ak yeneen i réew dootuñ ci wàcc de ñaw le soleil yéene kaay ne dama ne la boole moo jëm nag wàllum jaww ji de juróom-ñaari réew dootuñ fa wàccati laaste aéroport international Blaise Diagne boobee waaw fa la gaañe di jaar de mar di tali waaw waaw critique yéene kaay ne tëj na kon jaww ji yéex na ko def léese ko yéene kaay ne tëj nga xam ne nag maanaam kon tëj nañ ko kon kaw jaww ji waaw roppalaan yi nga xam ne kon dañuy jóge ca France ak yi fii jóge di fa dem te diwaanu Italie waaw Espagne ak Belgique ak Portugal waaw fii ak fanweeri fanu yàlla yoo xam ne de dootuñ fi wàcc de roppalaan yi mag yi nga xam ne kon dañuy defi bagage cargo waaw wala roppalaan yi nga xam ne kon dañuy yóbbu ay nit ñu feebar te ñooñu daal lañu autorisé te ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal roppalaan yi sax di avion yi waaw ca biir la toog te buñ fi yegsee tamit dee liñ fiy taxaw du bari de déedéet enquête yéene kaay ne waaye suñu wàllu koom-koom ji la nañ ko bàyyi xel de nañ ko gi kay boo sàgganee rek maar di tali ba Bérangère Ngom jàpp na ne lañ doon am ca wàllum koom dee genn wàll gi dana dem wala fi mu nekk nii taxaw de aj leen nooy Ousmane Birane Sané nee xanaa xamoon leen mu ñoree cool ba ñoree cool ci secteur privé bi ak force productrice yi waaw nguur gi ci boppam da ciy teg loxo looloo ko war bu naree compliqué rek ñu teg loxo les ko yéene kaay ne tere bi nga xam ne nag maanaam kon ñu ngi ko tere manifestation yi fii ak fanweeri fan waaw artistes yi day waykat yi waaw ak làmb ji ah danañu perte lu bare sax xoolal ma Pape Diouf borom génération consciente waaw nee na dépensé bare ci concert bi nga xam ne kon na moo na koo amal kon ci liggéey def ay partenariat tey ay publicité média ak ay partenaire waaye yàlla rek ay yàlla Pape Diouf ne jëyee grand kenn du moom dëgg la ndongo di ah nee na ñun day daal dinañuy dakkal nag suñ promotion album bu bees yaama télé bi nga xam ne waroon nañ ko def waaw Pape Abdou Fall promoteur nee na perte nañ de ci làmb ji lee diggante Papa Sow ak Siteu le quotidien yéene li ñu war dundee te mu nekk ci réew mi lee daaray waaw mbaa du jeex la ñuy am ca douane ba ak lempo ba waaw mbaa du wàcc l'observateur ne waaw avion dootul ñëw ñi feebar bi dala ngi gën a yokk suñu wàllum koom-koom gi lée lu yàlla xam doy na en tout cas coronavirus gi ah nañu génn xeetu ci xam ne dee jéggi na dayoo taalibe yaa ngi ni lée ñu bàyyi leen ci mbedd mi ak seen bopp ak jàngoro ji te Sénégal de li mu war a dundee war koo lekk waaw te bu nekk ci réew mi lée mën te def loo ëpp ñetti weer de stock bi ñetti weer waa kër Abdoulaye Daouda Diallo ministre finance ak xaalis ba yi nga xam ne ñu yoreel hôpitaux yi lée mi doy en tout cas benn français de dugalaat na fi jàngoro ji de maar di Italie maa la ko exclusive yéene kaay ne Pape Gorgui Ndong day waaw daal dinay convoqué nag ab réunion d'urgence ca mairie ba Pikine la waaw ak conseil municipal ba moom monsieur le maire waaw daal dinay woon ak ñii di bàjjenu gox yi la centre ado de quartier imam kër Serigne kër Serigne Touba jàngu ba di église ba Notre Dame Pape woona ba woo ñay théâtre di waa Arcos bu Pikine très doomu jàngoro ji de kàcc yee làqatu ca ginnaaw le virus du mensonge ay fake news di wax lu dul dëkk grand place ne looloo tax de Abdoulaye Mbebeex ak Salbe Ndom waaw daal dinañ leen convoqué gendarmerie ñoom ñaar ñooñu de ñoo njëkk a daanu ci plainte bi nga xam ne kon Abdoulaye Diouf Sarr daal dina koy plainte Abdoulaye Mbebeex de ba gendarmerie doxee ca kaw waaw daa dellu ginnaaw de ne billahi dootuma ko waxati Salbe Ndom moom bañ ko ko portable kay lox na de tiit na de ndax Abdoulaye Mbaye Peex nee na dootuma waxati noppi naa ba faw Selbé Ndom moom dañu may daw këram kenn nekku fa fay na portable teg ca sur saane daan ñu njëkk de ma ngay wàcc ndax ca gaabu waaw Abdoul Fofana frère am Abdoulaye Fofana teg nañ leen loxo de ca diwaanu Mbàkke takk deer ya tas nañ fa anniversaire bu rëy jàpp ko ko organisé ca quartier gaawaan tas nañ tamit ab daayira buñ doon amal doy la doy waar moo ëmbal xale ba ba nuppi daal di koy rey te xale ba fukki at juróom dong la ëmb ñaari weer la ilaha illallah ne Chérif Assane Fall la tudd libération yéene kaay ko may ma yegali ma yegali parce que Assane mi la nee na amuma woon beneen solution lu dul lii rek parce dama ne xadi bàyyil di wër di wax ne maa la wan na ci laa jël abuum nag daal koy xot la ilaha illallah Chérif Assane Fall moomee waaw nee na deru baayam ci boppam sëñ ba deram la ba wax wax wax wax wax wax wax grand bi day fàttali rakk ji chaque bi rek parce que suul gaz du ko teree xeeñ grand bi xam ne troisième jërë ngeen jëf sama boppam la gënal du bañ naa la gi ñuy wax suñum réew di Sénégal ma nga ca bu baax a baax yëral xët mu njëkk soleil national ci kaw pexe yi kilifa yi teg ngir jëre fi coronavirus bi moo waral ñu jël dogalub tëjal suñu jaww ji juróom-ñaari réew li ko dalee suba ci àllarba ji minuit moins une sa dootuñu nangooti benn avion di jóge ci réew yooye di terse ci réew mi mbaa ñuy jóge ci réew mi di dem ci yooyu la réew juróom-ñaari réew réew yooyu yan ak yan la soleil national nañu réewum France la Italie Espagne Belgique Portugal Algérie ak Tunisie le témoigné nañu Sénégal ñàkk na boppam tëj na ay frontière aérienne am suba ci àllarba ji ci lay tàmbali bu minuit jotee journal Les Échos feelu ko xamal ñu ne Ndakaaru samp na ay diggam diggam ak réew yi coronavirus bi wulee ñaay lu dul avion yi ñuy wooye ay vol cargo ak i vol d'évacuation sanitaire dootuñu nangoote ñuy teew ci réew mi l'observateur cas bi ci mujj démb la feeñ di benn doomu France bu toll ci juróom-benn fukket ak juróom-ñaar juróom-ñaari fan ci weeru mars ci la dugg si woon Sénégal roppalaanub compagnie Liberia moom la jëloon bi muy ñëw ñeneen ñi surnaal l'Observateur gis ne warees na leen a bàyyi xel ci xeex bi ñuy xeex ak coronavirus bi mooy guney taalibe yi ndax ñoom it foo yooy gu ñu foo yooy tax na seen bakkan a ngi ci xot dogal bi ñu jël jëm ci tere yenn réew yi seen i avion di dugg ci réewum Sénégal l'Observateur nee nañu donte dafay lu munta ñàkk terewul mesure la yoo xam ne du jural jàmm aéroport Blaise Diagne la Sénégal mel ne ku naan ko aéroport Blaise Diagne moom ko jël ci doga rek doyul ndax fa la bi jaare ba dugg ci réew mi la tribune ne ko moo taxit dog nañu tipp yoon wi jàngoro ji jaar ba dugg ci réew mi dootuñu nangooti avion di jóge France Espagne Italie Portugal Algérie ak Tunisie di dugg ci réew mi anki dina kay nañu dogal boobee dogal la bu nar a jural ay jafe-jafe lii di tourisme bi ak fret bi l'observateur ne ko loolee ci gën a tuuti ndax tëju gi ñu bëgg a tëju bu yàggee lu ñuy dundee danañu të Ousmane Bay di directeur commerce intérieur di xamle ci biir journal l'observateur ne stock bu réew mi mën a dundee ñaar jàpp ñetti weer am rombee dafay doy waar tëj gi ñu tëj frontières yi ci jaww jeeg ci géej gi journal Le Quotidien gis ci ne koom-koom gi di économie bi moo nar a coronavirus ndax bu booba ak dund dootu jugee ci bitim réew di dugg ci réew mi te li mu nar a njëkk a jur ni ay jafe-jafe mooy ay recette fiscale ak recette douanière yuy wàññeeku Karim Wade ma ca dowaa Le Quotidien bind ci xëtam mu njëkk ne nee na ànd nag président Macky Sall ci dogal yi mu jël te it mi ngi koy rafet lu bu baax a baax Thierno Bocoum jël kàddu gi ci Les Échos nee na président Macky Sall na génnee juróom-ñetti milliards yi mu amee ni ay fonds politique bi baa mu am lan lu mu ca joxe Sadio Mané joxe na fanweeri million record yéene kay moo ko bind ubbil journal bi xeex gi ñuy xeex ak Covid 19 bi ci Sénégal tax na footballkatu Sénégal bi di Sadio Mané yëkkati fanweeri million jébbal ko comité national gestion épidémie corona bi ngir jàppale ko ko ci xeex bi ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr ak leneen lu muy xeex muy ñi wër di wax naan coronavirus amul ci Sénégal xeex ba tàmbali na jurus lëf grand place ni ñu ci ñu ko doon wax ñi ca njëkk am lante ak yoon ñoo di Abdoulaye Mbaye Peex ak Salbe Ndom communicateur traditionnel bi Abdoulaye Mbaye Peex ma nga woon ca gendarmerie journal bi nañu waaye la tax yàggu fa mooy bi ko gendarmerie laajee li nga foo ko teg dana leen tuub naa wax ji billaahi dootuma ko waxatee keneen ku ko waxoon te gendarme yi woolu ko grand place ne nañu moo di salbendom waaye li ci ñuul moo di moom seetkat bi dafa fa réer kenn xamul fan la nekk te it kenn mënu koo jot téléphone enquête nañu en tout cas gendarme yu section recherche ñoo ngi koy xaar convoqué nañu ko tey j onze heures ci yor yor Abdoulaye Mbaye Peex moom ko démb déglu ko libéré ko ñu libéré wu ci waxi corona bi bi ñu xëy ci Khady Diouf mooy xale bu jigéen bu fukket ak juróom bi ñu rayeen ca Thiès ba muy faat journal bi nee nañu mu ngi woon ak ëmb bu toll ci ñaari weer libération nañu ki ñuy tuumal ne moo ko faat nangu na ne moo ko def Assane Fall la tudd nee na ñàkk pexe moo tax mu rey xale bu jigéen bi ak buum la jël xojo ko ko ba mu jaara ca faatu yéenekaay bi nañu Assane Fall xamal na enquêteurs yi ne dane woon xale bu jigéen bi na bàyyi di wër di wax naan maa ko ëmbal ndax loolee rafetul ci sama der jamono yëpp aduna bi nekk ci jaaxle waaye teewul am na ay xibaar yu neex yu leen fas yéenee dektal vaccin expérimental ngir xeex coronavirus piqûre nañ ko ci altine bi patient bu njëkk ca États-Unis ñu ngi koy waaj a testé ci lu toll ci ñeent fukk ak juróom nit ñoom ñëpp ay volontaire lañu te dara dalu leen seeni at mu ngi tollu ci diggante fukk ak juróom-ñett ba juróom fukk ak juróom test yi kon dinañ ko amal ci diiru juróom benn semaine suñu sukkandikoo ci ñu yor lépp luy wérgu yaram ca Amérique beneen xibaar bu neex bi mu ngi bàyyi ko Chine bi nga xamante ni euh, fa jàngoro bi dooree njeextalu weeru décembre ci téeméer boo jël ci ñu amoon coronavirus ci réew boobule juróom-ñaari fukki wér nañu peng suñu sukkandikoo ci OMS juróom-ñaari junni nit yoo xamante ne jamono yi weer nañu ci juróom-ñetti junni nit yoo xamante ni kon booba léegi jàpp nañ ni moom la mbir mi dal foofu ca Chine ci àdduna bi sunu sukkandikoo ci xayma bu mujj bu organisation mondiale la santé def ci altine bi ci ngoon nee nañu fukk ak benn junni kaa yu bees moo am kon léegi ñi amee jàngoro ji ci àdduna bi mu ngi toll ci juróom-ñeenti fukki junni ak juróom ñi ci mujj ñàkk seen bakkan ñu ngi tollu ci juróom téeméer ak li teg soo ko boolee mu jox la lu ëpp ñetti junni nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan réew yi nga xamante ni moom la coronavirus gën a laal ginnaaw Chine fi nga xamante ni fa la bàyyeekoo itali la Iran topp ci Espagne topp ci ak France ci Afrique ñaari fukk ak juróomi réew ñoo ko am Benin Rwanda Kenya ak Éthiopie ñooy réew yu mujj yi am coronavirus Sénégal nag ak ñaari fukk ak juróom mooy réew bi nga xamante ni moom la mbir mi gën a laal ci Afrique sowu jant ca ganaar Égypte la feebar bi gën a laal ndax foofu am na téeméer ak juróom fukki nit yoo xamante ni dañoo feebar te ñaari nit ñàkk nañ ci seen bakkan ci lu féete penku Afrique Afrique du Sud moo ëppale ay ka am na lu toll ci juróom benn fukk ak ñaar daanaka Afrique centrale moo gën a néewle ay cas ndax li fa gën a bëri ñu ngi koy fekk Éthiopie ak Rwanda ku nekk am juróomi cas waaye nag am na réew yu am frontière ak Sénégal yoo xamante ne ba tey amuñu coronavirus bokk na ci Gambie ak Mali mi nga xamante ni yàggul rek am na ñeenti fukki cas suspect yoo xamante ni testé nañ leen waaye dañoo négatif. Malikon lu yàggul jël na fukki mesure ngir mën a faggu ci jàngoro ji waaye ba tey kilifa yi foofule waxuñu dañuy tëj frontières yi ak réew yi nga xamante ni ñoo ko am bokk ci euh, Sénégal Mauritanie Algérie Côte d'Ivoire Guinée di réew yoo xamante ni am nañu frontière ak euh, réew Mali. léegi nag ñu ñëw ci xibaar yi nga xamante ni mën na leen amal njëriñ jëm ci wàllum coronavirus bi su fekkee ne da ngeen fas yéene bàyyeekoo ndakaaru dem ci réew yii may lim gaaw leen dem laata mercredi li ko dalee le 18 mars. du amati benn avion bu jógee ndakaaru wala bàyyi ko ci réew yi di France Italie Espagne Portugal Belgique Tunisie wala Algérie di ñëw Sénégal Maroc moom moo jiitu dogal bi ndax ñoom tëj nañu seeni aéroport bépp avion bu bàyyi ko Sénégal waaye nag suñu ndaw bi ñu fa toogal di Xaadim Mbay mu ñuy xamal ni Air Sénégal muy organiser ab vol spécial ngir bépp sénégalais bu nekk ci réew boobule bëgg a ñibbisi su fekkee ne kon mbir mi intéressé na leen woote leen gaaw ci Air Sénégal laata la 19 mars su fekkee ne tamit seen kër am ngeen ay élèves yu nekk CM2 3e terminal xibaar bi tamit dina leen intéressé Télé Futurs Médias li ko dalee mardi bi dina door émission bu bees bu tudd salle des bés bu nekk bu huit jotee nañu amal ay cours yoo xamante ni ay professeur ñoo koy joxe jàllale ko ci télé bi ci suba si ñaari fukki simili ak juróom-benn la bu quinze jotee nañ leen dëttal cours yi yëpp ni mu gën a yaatoo ci lu toll ci juróom fukk ak ñaari simili